الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوتي تي في جسان فيدوبي سيدي علي سيسي رك موجود 1906 1906 كنت في ملي سيدي علي سيسي بايكو مغيون جروم بن أت منك أمانة من والد الشيخ نا الحاج عبد الله نياس بو ماك بي واجورو باي مو جير سيرين علي سيسي دينك كو باي te kenn ku nekk xam na waajuru Serigne Ali Cissé nan la meloon ak baay ba ci maamam sax maamu Serigne Ali Cissé waaw ba ci maamam Cheikh Mouhamad Abdoulaye def ne dafa wax bi muy wax Serigne Ali Cissé dafa wax benn jumla boo xam ne soo déggoon arab da nga xam ne waa ji ci jumla bi wax na ci Serigne Ali Cissé dundam yépp bam jeex te daanaka benn jumla la rek mu ne maa kaana yashkuru annahu mawjudun maa cheikhi walakinahu kaana yaalamu annahu mawjudun bi cheikhi mu ne sëriñ Ali Cissé musul yëg ne moom moo ngeeg bàyyi waaye moom xamoon na ne mawjudun bi dafa nekkee bàyyi kon ku nekkee bàyyi ak ki nekk ak du benn wax ju rëy te waa ji def ko ràbb ci arab ràbb ju am solo mu ne musul yëg ne moom Serigne Ali Cissé musul yëg ne moo waaye toujours xamoon na ne moom daa nekkee bàyyi te wax yi ci olof dañuy faral di sew lool te ku mel ni oustaz Barham Diop daan na ci gàgganti nit ñi léeg-léeg nga dégg oustaz Barham Diop ne dama àndoon ak bàyyi ba si yàgg mu ne astaghfirullah Baye àndoon ak man xam nga nekk dama àndoon ak Baye ndeke ak Baye àndoon ak man ndekete du benn te ku mel ni man su ko déggee day yaakaar ne yow nga ànd ak Baye ak Baye ànd ak yow ndekete ah maa qattu jaalastu safihan oustaz Barham Diop nee na bàyyi nee na musuma toog ak ku yembadi mu ne waaye waxu la ku yembadi musul toog ak man loolu wax yi dañuy faral di sew Serigne ali Cissé mu ne musul yeg ne mo ngi nek ak bay parce que so nek ak bay dafa xamé ne da nekk nek nekk da nga nek ne da nga nek nekk da nga nekk baay da nga nek nek nekk nu bay ngeen jéggal ma pol buy wax olof la nek nekk nu bay moy fi ne kon ñaar nekku fa kenn fa nekk ñi tarbiyu sax dama leen faral di gagan ci wax ji leen kuy tarbiyu nekk ci fanaaw nga bëgg mu dégg fanaaw bi nga ne ko ana yàlla mu ne la yàllaa ngi fépp ma ne ko déet yàllaa ngi fépp soo ko waxee ba léegi yaa ngi bokkaale ci aarifina billaahi laa wax nag yàllaa ngi fépp moom xam nañ loolu mbiru zaahir la loolu lañ jàng ci téere yàllaa ngi fépp ndax alxuraan def na maa yakuunu min najwaa salaasa illaa huwa raabi'uhum fu nekk rek yàllaa nga fa daal yàllaa ngi fépp waaye soo ñëwee di tarbi pour xam yàlla am fanaaw am la góor yàlla yi amoon ba yow anilla ma al ahbaabi ruyataka allati ilayha qulubul awliyaai tusaariu yow bëggoo wax rek ne yàllaa ngi fépp déedéet yàllaa ngi fépp xamoon nga ko balaa ngaa ñëw di tarbiyu mais lan nga bëgg a xam mooy yàllaay lépp loolu nga bëgg a xam kon yàllaay lépp ak yàllaa ngi fépp du benn waaw kon ndeke fu yàlla amul amul waaye lu dul yàlla amul fu yàlla amul amul waaye lu dul yàlla amul kon ndeke fu yàlla amul amul wax la loolu ñi tarbiwul ñoo ko moom fu yàlla amul amul fu ne yàllaa nga fa waaye lu dul yàlla amul loolu ñu yegg ñi ñoo ko moom lu dul yàlla amul kon wax bi daa sew waaw Cheikh Abdul Karim moo daan wax do allah ala ala kon ko ko wona allah ala fu yàlla amul amul waaye lu dul yàlla amul kon ñaari bokkuñ kon ki nekk ak bàyyi ak ki nekki nekkinu bàyyi du benn Serigne Aliou Cissé nekkul ak bàyyi déedéet dafa nekkoon nekkinu bàyyi maanaam daal ci gàttal benn dërëm la bu nekkoon ci poche bàyyi Serigne Aliou Seydi Aliou Cissé nee ne man bàyyi musuma digal dara ma mooy ko bañ koo def lu dul benn yoon dama daf ma yebaloon Nigéria ci tukki yi may tukki di ko liggéeyal di ko xidmaal foofu lañ ma dajaleel ci addiya oom lool bàyyi ne xaaj ko ci digg bi lenn li nga yóbbu ko yow sa njaboot lenn li nga indil ma ko Serigne Aliou nee na jéem naa appliqué sax li ko bàyyi wax xaaj ko ci digg bi nga jël lenn li indil ma lenn li mu ne jéem na kaa appliqué comme que ndigal la ولم تطاوعه نفسه فتوجه بكل ذلك الى الشيخ بكنا ما يكون مخاج في ديغ بي مجل بو لب جوخ باي مي باي لا ديكو ندا خاج نكو ولا خاجو باي مولا غنا خم سوكو ديغالي سيرن علي لان لاي سيرن علي دي ديف خمنا كو باخ اها ندا يوننت بي جيلنا نامباتال مانا ديرتام غودي نكو ديندل سي يارامم مو جوخ كو بن خالي عبد الله ابن عباس دمال تورال ما xale bi dem làqatu ci koñ bi naan ko ndax deretu yonent bi la waaye yonent bi xol bi yëg na ne Abdullah ibn Abbas mii ni mel ci man est-ce tuur na ko waaw mu woo ko foo ko def dama kaa naan am ku jël tuuritu ndox tuuritu ndox laa ko mën a wax mooy sow yonant bi ngeen jéggal ma ci kàdd bi muy ummu ay mën a jigéen la goo xam ne ba yonent bi yaayam di génn àdduna yaay yonent bi kenn nekk foo yonant bi ak ummu ay mën a ci dawaahi Madina guddi gu lëndëm yaay yonent bi di wax ak yonent bi ummu ay rek a fa teew di wax yaa muhammadu kun rajulan yow muhammad fexeel nekk góor yonent boobu tuuritu ndoxam la jox ummu aymana ne ko tuural ummu aymana laxatu naan ko waaye xolam dafa mel daf ko est-ce que ummu aymana tuur na ko mu ñëw mu ne ko ummu aymana foo def ndox ma mu ne dama kaa naan mu ne ko lu tax mu ne sama biir a doon métti mu ne ko laa yaja an na batnuki ilaa yawmil qiyaamati yow sa biir dootul métti ba bés péncu yàlla kon ndekete eh, waa ji sëriñ Aliou Cissé xam na sax nan la def te tamit Baye daan na wax ci Seydi Cheikh Ahmed Tijani al Khalifa yàlla na ko yàlla yërëm ah, képp ku tukki soo ñëwee da nga dindi ca la nga am dara jox ma lu dul cheikh cheikh moom su ñëwee lépp la may jox dama xamul moo gën a muus ñëpp wala moo gën a dof ñëpp yaakaar naa daal tontu baa ngi ci yéen sëñ Ali Cissé nee musul mooy ndigalu Baay Ñas benn bés lu dul ci lii te mooy gii mooy jëmm topp ndigal man noonu laa gisee mooy gii mooy jëmm topp ndigal moo tax euh, Cheikh Ibrahim Niass melool na Seydi Ali Cissé ci lettre googu mu bindoon ci Baba Makaranta ca Ghana baaba makaranta benn góor yàlla la goo xam ne ku bëgg bàyyi la ndeysaan bàyyi sax moo koy cité ci yenn ci bay yi ba mu yendoo ci aéroport ba ne zaliltu fil mataari indi baaba ah faqad raaytuhu li kulli xayrin baaba nga dindi faqat bi balaa arudi yi di ma indil ay jafe-jafe wa hum eh, bi hisaayi wa ma hum minni bi baidin nga gis ne ah, nga gis ne من زليلت دما يندو عندي في المطار باب زليلت عندي في المطار باب دما يندو تي ايرابور بي ماغي بابا بابا نك غيسناكو موي بونتو تي بيب يو لتر غام دون بيندي تي بابا مكارانتا من اما با فالى المقدم البركه الحاج بابا مكارانتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يليه الإعلام بأنه توجه نحوكم أميني العام العارف بالله خليفة الشيخ الختم التجاني بلا نزاع ولا شقاق سيدي علي سيسي نيابة أني في زيارتكم والأخذ بأيدي الإخوان أرجو النفع به دمل الوحدي فهو محل نظر الله تعالى وفقتم لاغتنام الفرصة آمين والسلام الحاج إبراهيم يسأل كولر بينين يا بابا مكرانتا جناب ملنيو li ci li ci topp topp mooy maa ngi lay yëgal ne jublu jëm ci yow aminil am sama secrétaire al arif billah ki nga xamne ben xamna yàlla kon Serigne ali Cissé arif billah khalifatu Cheikh tijani Serigne ali Cissé bàyyi ne Cheikh ahmed tijani yi bim ko waxe dafa melni da am ko wa ah Serigne ali khalifa Cheikh tijani la ne bila nisaa lolu amul xëccoo wala shiqaqin amul wute Seydi Ali Cissé niyaabatan an nii ñëw moo ngi ñëw foofu ca Ghana moom may wuutu fii ziyaaratikum ci ziyaara leen wal axzi bi aydil ixwaan ak mu téye seen loxo yeen mbokk yi ci yàlla mu yóbbu leen ca yàlla wa arjun arjun nafa bihi arjun nafa bihi maa ngi yaakaar ne yàlla dana leen njëriñ ci ngir moom ndax benn fa huwa moom mahallu nazarillahi taala lii nag xam naa ku déggul arab dañ la koy firil bàyyi nee na Serigne Ali Cissé mooy place bi yàlla di xoolee ci mbindeef mahallu nazarillah yàlla su bëggee xool mbindeef bi fenêtre bi muy yërëm mooy Seydi Ali Cissé lii nag ah, euh, maqaamu al murid maqaamu cheikh yi lii maqaama bàyyi la su neexee bàyyi mu jël ko solal ko Serigne Ali kenn mënu ci dara maqaama bàyyi la waaw maqaama waaye su ko neexee mu solal ko Serigne Ali Cissé ndax Serigne Ali Cissé méngoo ko moo tax mu ne la waa ji ne la mom nekkul ak cheikh waaye dafa nekk cheikh bàyyi nee ne ci lettre bi ci ndénkaane bi yaakaar naa lettre boobu ñu bëri jot nañ ko te tamit bokk na ci lettre yi traduire en français wa in ana mittu wala baqiya illa allah allah fa khalifati alaykum wal walad al al bar khadim allahu fallahu xalifati aleykum والولد البار الخادم الأرضى العلام العارف بالله سيدي ألي fa huwa shaykh awladi wa ashabi wa khalifati ba'd allah fihim mune Euh, su ma deewee mu daal di benn entre parenthèse mu ne te kenn du des ku dul yàlla yàlla mooy sama xalifa ci yéen ak doom ju baax ji ki may liggéeyal ki gën a gërëm borom xam-xam aarifu billah Seydi Ali Cissé mooy sàmm sama njaboot mooy sama sëriñu doom yi mooy sama sëriñu doom yi est-ce que sëriñ Ali Cissé sëriñu doomu bàyyi la rek déedéet bàyyi ne wa asxaab yi mooy sama sëriñu taalibe yi moo tax ba muy tukki mu ne leen am na koo xam ne sëriñam a ngi tukki mooy Aliou Cissé waaye yéen moom seen a ngi fi ndax Aliou te tamit benn bés moo ngi tukki di dénkaane di dénkaane di dénkaane ba ci yàgg mu ne laa utilul maqaama laa utilul maqaala fa sayidi ali sise yugni fi kulli cheyin wa hasbuhu llahu wa hasbuna ni'mal wakiilu wa salaam loolu moo ngi am ci atub junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar boobu bàyyi ngi aji ajak fukk ak fukk ak ñaareel douzième ajug ngi aji di dénk di dénkaane ba ci yàgg ci ndénkaane bi mu ne du ma guddal wax sax ndax Seydi Aliou Cissé mat na ci lépp moom laa fi bàyyi yàlla na ko yàlla doy wa xasbuna yàlla nañu yàlla doy wa ni'mal wakil est wakil mooy yàlla wa salaam euh, ci beneen lettre asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa euh, ci la bokk su ngeen di jàng lettre bàyyi waaw sax bu leen ko bàyyi waaw bu fekk dafa am lu muy dox ndax dama gis ci lettre gi ma jàng sànq eh, arju bihi nafa yaa ngi dégg de arju bihi a man may bind lettre bi dama waxoon wa arju bihi nafa dama ci yokk waaw ma dem ñëwaat gis ne waaw bi nekkul ci bind bàyyi bi ma gaaw effacé ko ndax loo ci yokk donte benn xaraf la indi nga musiba loo ci dindi donte benn xaraf la indi indi nga musiba man nga xeeb xaraf gi yaakaar ne xaraf gi indiwul benn maanaa te fekk xaraf gaa ngi yenu maanaa gi toll ni asamaan bi yaa ko yëgu moo tax nag Baye Niass nee ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa baraka rahmatullahi taala wa barakaatu an madadi mawlana xaatimi lwilayati almuhammadiya walada ruuxina wa xaazina sirrina walfaizu birrida taami minna في جميع الأقوال والأفعال من نشأته إلى هذه اللحظة لم يسؤني قط منه قول ولا عمل ولا نية حسب ما شهد بذلك للصديق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على تباين المرتبتين سيدي أبا الحسن وابن الحسن سيدي علي سيسي باينين ما نقول بيلاتر بشين لوك مولانا خاتم الولاية كما الولاية خيرت يونتي الله محمد إيه يا سما دوم روح ولد روحنا wa xaasina sirina yow mi denc suñu secret ndax baay wax na ko ci yeneen bayt aliyun xadimi xaasinu sirri kaatibi bi tasyini ma di wala li tasyini ma di ngeen baal ma ñaari bu ci mën a nekk xat ala kulla faayiqi mu ne aliyun aliyun seydi aliyu siise aliyun xadimi sama liggéeykat aliyun xadimi euh, xaasinu sirri moo may dencal sama secret kaatibi moo may bindal sama tagg yi may tagg yonent bi wala lettre yi sax Seydi Aliou Cissé yegg na ci Baye ci maqaama goo xam ne Baye su bëggee bind leetar lam xalaat suy bëgg bind leetar boobu su waxee Aliou Cissé bindal ma leetar jëm ci diw rek léeg-léeg mu yem fa gis naa leetar yoo xam ne dafa bindal bindal ma leetar jëm ci diw rek mu yem ci Seydi Aliou Cissé xam ni Baye war a bind waa mu bind ko ci ni ko bàyyi xaatiree mu su ko indee Baye ndeysaan nga gis Baye kontaan ci ba bind ci suuf ne lañ bind foofa ca kaw man maa ko bind maa ko maa ko nga xam ne nekkate nga yegg ci sa sëriñ ah ñun de wax dëgg yàlla loolu loolu maqaama gu kowel ak loo am xam-xam xam ku tol ni bàyyi war a tontu nit ci lettre mu ne la tontul ma diw te léeg-léeg sax doo gis lettre bi bindal ma diw lettre rek yem fa rek nga xam lan la bàyyi war a bind ci lettre bi nga bind ko kookuy am taw tawfiq ci àdduna kooku moo la ëpp tawfiq moo tax ne sirri kaati bi di tasili madihi qad ala kulla mu ne Seydi Aliou Cissé moom kawe na ci képp ku raw ci kaw suuf Baye moo ne képp ku raw Seydi Aliou Cissé moo ngi sa kaw Baye ko wax te man dama ne Seydi Aliou Cissé or la woon ca xëybu walu yàlla yi di ko xëccoo ay ati at Baye ñëw battre leen ne coppet Seydi Aliou Cissé indi ko yaa ngi dégg de ci Madina mu nekk lam nekk ba naar bi di wax madinatul usisat bi cheikhi tasisa la garwa anna aliyam babahu sisa madinatul madina boo xam ne ussisa bi ta dañ ko fondé bàyyi ñes suñ ne aliyu mooy buntu bi wallahi loolu wul la xarwa anna aliyan baabahu di buntu baba bi badal la anna aliyan baabahu dañ koy nasab mooy badalu ali bi ali mi nga xam ne mooy buntu cheikh siisa bi maanaam usliha dañ ko defar min tarafi cheikh ndax saasa bi mooy aslaha ndekete siisa sisa, du sant ngeen bàyyi ci xel du siise de la xarwa anna aliyan baabahu siisa degna ko ku sise baxna waye nak waaye nag du loolu siisaa bi ñong ko jëlee ci min sasa bi mana asla sisa nek fitlun maadin mabniyun lil majhuli sisa moy defar nañ ko mom ali min tarafi cheikh ibrahim motax sidi ali siise mo ngi nonu euh sir sirrana sirrana yow suñ mbot seydi ali siise mbóotu bàyyi la wal faiz bi rida minna moy ki texe ci ngërmande gu mat sëkk jëlé ko ci am ngërmande ak bàyyi waye gu mat gi gu mat sëkk gi fi jami'il aqwali nga am ngërmande ak bàyyi ci kàddu wal af'ali nga am ngërmande ak bàyyi ci wax min nashatihi mune ba Seydi Ali Cissé soxo ba ko yàlla sakke ila hadhihi lahzati ba fim mu lam yas'uni qat musma def luma métti ben bés mune bi yàlla sakke Seydi Ali ci ba nim taxawé non musuko def luko ko lu ko metti mu ne du xawlul du wax gum wax wala amalul du jëf te wala niyatun du yéene xam nga li ci gën a doy waar mooy yéene gi yow kay man ngaa ñàkk wax nit ki lu ko neexul nga ñàkk koo def lu ko neexul waaye nga mus nga musa a yéene mbir ci sa xol te fekk neexu ko waaye bàyyi nee ne wala niyatu yéene sax seen ali siise musul yéene loo xam ne day naqadi bàyyi ci xolam kon man jumla bi xam nga lan la ci déggé moy yow talibé gi la ngay xalaat sa xol la ngay yéene ba yaa koy gis ndax su nekkee ne da daa du bay bay di la tëskiya di la setal di la sellal ci sa bir yéene nekete bay xamna na dégg ni ñun ñëpp lu ñuy xalaat suñu xol waye nak li Cheikh Abdoulaye Diédhiou ba waxoon wul Hamid ci àll ba booba ñoo ngi jublu Kawlax mu ne ko hali cheikh ibrahim ma dama kawnuhu qutban al wayrana fii ci àll bi est ce que Baye Niass moom ñuy gis comme que xutbu la est ce que Baye Niass moom ñuy gis mu ne ko yow téere ga ma la joxoon sirul akbar pour nga liir ko mu ne ko ah mu ne ko gisoo fa Baye di wax ana nafsu wal afaqu mahma rahaytaha tarain maay bakkan yi maay gox yi bakkan mooy lépp luy dund goox mooy lépp lu dund doj yi sax dugg nañ ci yaa ngi di garab yi dugg nañ ci mahma rahaytaha tarain yi soo gisee bakkan yeeg gox yi gis ma fa fa innil kullu maay lépp gisoo ko bayt bi gisoo mu ne gis naa ko mu ne ko yow bàyyi ne la maay bakkan yi may goox yi ngay laaj ndax moom lay gis yow léegi bàyyi yow sa bakkan bi bàyyi la ana nafsu maay bakkan yi yow sa bakkan bi bàyyi la ngay laaj ndax bàyyi ak may gis la ndax may gis mais mooy yow yëgoo ko bàyyi mooy yow bàyyi def ne araaka taraani bi haysu laa taraani gis naa la yaa ngi may xool foo ma giseewul te bokk na ci kéemtaan nga may xool xujju te gisoo ma loolu kay kéemtaan la fii gaa yaa ngi gis Baye mais dañ koo xamul bëri na koo xam ne ndeysaan yaa ngi taxaw di critiquer Baye di weddi Baye te fekk yow ci xéewalu Baye ngay wëlbatiku suba ngoon Baye moo lay xéewal añ bi moo lay xéewalal reer bi moo lay xéewalal ndekki bi yaa ngi wëlbati ci xéewalu Baye di ko critiquer di ko bañ saa boo xëyee yaa ngi xëy pour critiquer ko pour bañ ko wa azlamu ahlil ardi man baata xaasidan li man baata fi naamaihi yataqalladu ki gën a tooñ ci kaw suuf mooy kii iñaanal koo xam ne ci xéewalam ngay wëlbatiku suba ci xéewalam ngay wëlbatiku ngoonte yëgoo ko kon doomu aadama rek a jara yërëm hmm? moo tax bàyyi nee ne même yéene gi Seydi Ali Cissé yéene euh, Seydi Ali Cissé yéene loo xam ne dafa ñaaw jëmale ko ci Maulana Cheikh Ibrahim Niass fii nag bàyyi nee bàyyi radiyallahu anhu ci li muy wax ci Seydi Ali Cissé nee ne euh, حسب ما شهد بذلك الصديق حسب ما شهد بذلك للصديق النبي من كم نيكو يونتي بي سيدال سيدي يونتي بي سيدال سيدنا ابو بكر الصديق مسوكو ديف لو نياو مسوكو جيف مسوكو واخ مانكوي سيدال سيدي علي سيس لول لا باي على تبايو ني المرتبتين من مرتبه نك دانيو سوري ديغنتي سيدي علي سيس ابو بكر دو بن واي نك man tamit sama digënté ak yonent bi xëy na yonent mom moom ëpp grade waaye nag lam seedaloon siddiq maa ngi koy sédel sidi Ali Cissé sidi Abal Hasan, Bayu hasan wabn al Hasan, doomu Hasan, sidi Ali Cissé bela ji abdullah genné aduna ndongo yi bari dañu babastiku dem jokku ji ci bay loolu mom ku jàng taarix kuy deglu mag ñi di wax da nga gis ne bi Bayu abdullah genné aduna bayu bay wajuru bay ñu bari dañu babastiku dem ci Cheikh Ibrahim Niass jokk ci si moom direct waaye xam nga Seydi Aliou Cissé nan la def dafa ñëw ci Seydi Alhaji maam Alhaji Alkhalifa Mouhamadul Khalifa Niass di al Alhaji Abdullahi di Khalifa al Alhaji Abdullah di alaalimu di alwaliyu di attaqiyu di almurshidu di di lu ne waaw Seydi Seydi Serigne Mouhamadul Khalifa Niass lu ne la dafa ñëw ba ci moom daf ko ne man de dama amoon yéene dem jokku ji ci Cheikh Ibrahim Niass Serigne Serigne maam Khalifa Niass dafa kontaan ba jóg nee nañ dafa yaa ngi dégg de meloon ki wéeru rek jóg ne ko haza min kamali adabika wa husni xuluqika faqad azintu laka fi liltihaqi bi cheikh ibrahim walan yasbikaka saabiquuna walan yalxaqa bika laahiquun mu ne ko lii nga def nii ci ca teggin gu rafet la yow ali Cissé te ci sa jikko ju rafet la bok mu ne may naa la ndigal demal ci Cheikh Ibrahim Niass walan yasbika ka saabiquuna ña fa jitu duñ la fa raw te walan yaltaxiqa walan yalxaqa bika laaxiquuna te ñi ñëw sa ginnaaw duñ la mëna dab mu ne ña la ci bàyyi duñ la raw abadan te ñay ñëw sa ginnaaw duñ la mëna dab abadan xolal waxu wali yàlla gi li moy wonane mam khalifa ken genuko mat wilaya ken genuko xam yàlla mam khalifa la wax wax jii mu wax nii day jàngal nit ñi teggin rek ndax moom mooy xalifa baayam ndongo bi kay sa sëriñ nga la jokk woon génn na àdduna yaa ngi bëgg dem ci keneen ñëwal ci xalifa bi nga ne ko sëñ bi may ma digal ma dem ci diw xam ne du la tere loolu la sëriñ eh, Ali def defa kontaan moom maam xalifa mu ñaanal ko waaye warlul ko demal ña la fa jiitu duñ la raw est-ce que xam ngeen ñi yegg yàlla ci loxol bàyyi Seydi Ali mooy neuvième bi mooy juróom-ñeenteel bi am na kon juróom-ñett yu ko jiitu est que ñoo ko raw ci yàlla abadan la la la ñoom ñépp am na foo xam ne dafa bëgg a yegg waaye Serigne Ali daal mooy Aliyu Aliyu nag mooy ko kowe bàyyi nee ne ci li may taggal li may bindal samay tagg kat ala Aliyu la mais ala kowe na kulla faa'iqin képp ku rawoon li bàyyi wax kay ndekete ñi raw yaa ngi dégg di Seydi Aliyu moo nekk seen kaw kon dëggal na li maam Khalifa wax wax maam Khalifa bi te gis nga taarix ya nga daan gis ci téere Baye yépp Seydi Ali moo ko daan def taarix ya nga xam ne ci hisaabul jumal la maanaam Baye tukki na Nigéria ban année nga jël chiffre yi yóbbu ko ci hisaabul jumal génne jumla bu rafet te lii nii macha allah Seydi al imam Cheikh Tidiane Cissé dong na ko ci macha allah sa imam euh, Cheikh Tidiane Cissé borom xam-xam la macha allah alim la te yàlla may na ko tawfiq gis nga euh, moom Serigne Ali Cissé ban année la juddu. ci gadda yu yonent bi moo ngi juddu 1324 1324 la juddu bàyyi moo ngi juddu 1320 wala 1318 sank oustaz mohammed Lamine Kouta mo ngi koy leeral ci ñaar yi Serigne Ali Cissé 1324 boobu moom def ko génnee ci hisabul jumal ne at bi moy xat chakar xat chakar moy sant na yàlla xat chakar soo ko 1324 soo xoolee moom ba muy aji màkk moom Seydi Ali moo ngi aji màkk ci atu ban ban at 1374 1374 ci gàddaayu yonent bi ci hijriya laay wax waxuma ci miladiye ba mu demee aji màkka mu xool at bi mu mu dajeeg wa inna hajji la mashkurun wa inna hajji sama aj gi ma aji la mashkurun aj gu yàlla sant la ndekete soo limee loolu moo lay jox at gam aji moo ngi mel ni rek ma ziyaari ji woon haj misri ci at booma mu tombeeg mu aji màkka mu ñëw ma def ci moom benn xasida ci xasida bi ca njël benn dama ahlan bi hajjin hajjahu haaju tuqaa fi aami hajjal haaju hajjan mushriqa ci at woo xam ne hajjal haaju hajjan mushriqa soo limee aj aj haaj aj na aj gu gu leer bu jolli mu jox la at ga nga xam ne moom la yaa ngi dégg de waaye ku ko man nag ak ku koy jéem du benn Seydi Ali li muy def def koo man taarixu rihlati cheikhi ila Konakiri bay bay di dem Conakry moy 1368 1368 ci la bay ci gaday yonent bi yaakaar naa 1936 euh, ci la 1946 1946 mais 1900 1368 ci gaday yonent sallam ci la bay demone ca Conakry at momu Serigne Ali Cissé bam koy def atub nasrun min allahi wa fathun qaribun yi nga gis taarixu tukke Baay jëm ci Nigéria 1389 la Baay dem Nigéria ba mu koy taarixal def ko ne fa lutfullahi chamilun bina mooy yomb yomb yàlla yi denc nañu yi macha day firi xadam ngam am xadamun rusuux yaani fil ilmi ak tamit am yitte ci mën gestu mbir la ilaha illallah laa ilaaha illallah waa Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak gaal liggéey faydu baay bi Sidi Barhama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey faydu baay bi Sidi Barhama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy